asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 20 novembre 2020 ñëw ak yéen jégli kaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb moom fa mu xëy tey dikk ci xëtam mu njëkk daal ci diggante ñaar ñoo xam ne ay mag ak rakk lañu di ay mbokk muy ancien roi des arènes ba Balla Gaye numéro 2 le lion de bu ndaw ba nga xam ne moo nekk ca Pikine ak ka nga xam ne nii moom mooy roi des arènes di Modou Lo yëglikaay bi nag daa jàpp ne ab mbëkkante day ci seen diggante ndax la ko waral nag yëglikaay bi ne dañoo bëgg wala boog ñu bokk loo xam xam ne nii ñoom ñaar fi mu ne ñoo ko bëgg bu dee Balla Gaye numéro 2 la ku ne xam ne ne roi des ba da koo ñàkkoon te fi nekk nii la ne ca xel ma yëpp mooy jëlaat ko tee ko yóbbu ko géejawaay te rakkam di Ama Baldé itam fi mu nekk nii loolu moo ko teree nelaw ba tax sax moom fi mu nekk nii moo ko war a xëccoo ak Modou Lo mel ni kon nag daal bu bëggee dëgg-dëgg moom ñoom ñaar kum ci ñibbi ca ka ca des moom kenn ka faw mu génn ci am xelam moo tax sunu làmb tey ñëw andil ñu ñaar ñooñu muy Ama ak ka nga xam ne moo di mag ja di Balla Gaye numéro 2 ba tey keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Gris Bordeaux moo xam ne daal sunu làmb jàpp na ne day ñetti yi daal il mu jéem koo teg wala boog yu muy teg la war wala yan lay teg pour mën a am ay combat maanaam génn ci situation bi nga xam ne ni ci la nekk maanaam am combat dal di bëree ba tey yëglikaay bi di sunu làmb bu nu ñëwee nag ca la nga xam ne ni maanaam CNG bi jot na koo def nga xam ne ni daal biraase nag équipe la njëkk a def mooy wàññi prix wu licence daa mel ni ki nag leneen loo xam ne nii ba tey donte gaañu bëree bari ci waa làmb rafetlu nañ ko am na leen loo xam ne des na ka nga xam ne moom mooy fragier moom li mu jàpp ne moo des moom nag moo moo nekk ca les lutteurs en activité fragier daal xam le na ni 15 pour cent yi ñu daan dagg mbër yëpp nañ ko wàññi kon moom tamit andi ko ci 5 pour cent Aline Gueye moom tamit Aline Gueye di ab promoteur di ab manager moom la mu xam le daal nee na la nga xam ne moo di arène ba location ba daal moom itam daa mel ni loolu itam ba gis nañu laal ko moom itam wàññi bu baax a baax ngir promoteur ya mën koo gën a jariñoo du jànjek ko mu jiite amateur yi moom la mu xëy di wax moom la du moo di làmb ji ba ma nga xam ne nag moom mooy responsable amal daaba daal jàpp na ne mesures yi nga xam ne moom lañ jotagoo jël nii wàññi wàllum licence yi moom lu rafet a rafet la te itam lu xel mën a dal la Doudou fay tamit wax na ca moom itam de Doudou Faye tamit jàpp na ne daal prix yooyu ñu wàcc moom yu ama am solo la mel ni kon daal loola gaa ñu jot def moom ku ci joxe nga ca tey sa xalaat ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb lamb ji nag moom daa mel ni fi mu nekk nii yëglikaay bi ñëw na tey jàpp ne deux cent cinquante et un jours a ngi ni yoo xam ne daal maanaam ñaari téeméeri fan ak juróom fukk ak benn yoo xam ne arbitre soufflé wul mbër yi bëriwuñ ci làmb ji mel ni que nag yëglikaay bi moom sunu sunu làmb xëy wax nu loolu kenn doo nga mën a lijjanti mbir yi dévelé ko situation yi du kenn ku dul père de la nation di le président de la république Macky Sall nekk nii daal moo cëggal gu yëpp maanaam mbir yi moo ko mën a lijjanti ba gars yi delluwaat ca terrain ba wala ca arène ya di bëree sunu làmb xëy ñëw waa Gambie moom daa mel ni ba tey ñoom donte Covid ba ñu ngi koy wax daa mel ni daal fi mu nekk nii chaque dimanche ñu nga ca place ya di bëree yëglikaay lu mel ni ki noonu ba tey bu nu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii nag moom moo di ca record record moom la mënu xëy xamal nee na boo bëggee dégg-dëgg daal la commencé la 5 novembre ba le 18 novembre yëglikaay bi nag 13 jours la maanaam nag dikkal nañ ca gars yi naka la ñu def ba accéléré mbir ya maanaam daal ba doxal ba gaaw mbir ya continuer ñu bees ña commencé doxal suñu lamba wala boog record xëy ñëw tey andil ñu mel ni ki noonu leneen loo xam tamit ñëw na ci moom record ak dëgg daal la jàpp ne vérité bi nga xam ne nii moo am ci mbirum arbitrage ak seen bàyyi ci biir làmb ji wala seenug da loolu tamit record xëy na tey ñëwal nu ci leneen loo xam ne nii record ñëw na ci muy waa mbuur daal dafa mel ni na fa nekk daal di yëngutu ci wàllum lambi simple ja moom daa mel ni màng de mañ nome da a daal loolu mu nga fa nga xam ne ba tey moo di record bu ñu demee ca Leewtoo point moom ñu ngi xam ne suba daal soo bëggee dégg-dégg moom comité directeur u CNC bu bees bi ah danañu dajawaat fa nga xam ne moo doon suba 10 heures lan nu xamal ba tey fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo net ba tey bu ñu continuer ci Leewtoo net rek mbirum la nga xam ne nii moo di licence ñu wàññi ba tey Pa Abdou Fall ma jiite promoteur yi moom mu fa xëy di wax de nee na donte wàññi nañ ko nag waaye warta tax daal fu waay jóge rek ñëw ne da ngay jënd licence ne da nekku promoteur te nag loolu su amee bu keroogee anarchie lay doon lu ci mën a doon même bu nu ko wàññee a neex waay def bokk wala sabar gu tas Pape Abdou Fall moom loolu la xëy di ko dankaa fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point Kayre moom itam rafetlu na ko mel ni kon daal loolu moom lu jar a bàyyi xel la wax na dëgg nag parce nag bu fekkente ne wàññi nañu prix licence yi rek ah Babacar jóge fee yàgg ñëw Assane ñëw ku ne damay am licence te bu keroogee nag mën naa juróom yàqu-yàqu kon la am solo daal kuy dagg licence donte am nga ca droit ñu xam kan la naka la ak lu la tax a jóg ndax làmb asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ziar tey ci ajuma ji di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di wax ne bisu ajum bi nga xam ne bis bu sell la si bés yi ah ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo am te man tey joxe lépp lu ñu ci ñaan rek yàlla na ko suñu borom bi nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mucc xéewal saxadatu daara ni ci àddina bi waaye rawatina réew mi nu ne nag muy Sénégal ndax olof ne na mbay moom sa sa wewu tànk loolooy lay am tey nag ñu ngi ci le 20 novembre di vendredi ah, yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record ba ci Leewtoo point net rek fu nekk xibaari làmb ja ñu nga fa bu dee fa nga xam ne ni nag moom moo di ca sunu làmb la moom xëtam mu njëkk Ama Baldé fa ne ak mag ja la tax yëglikaay bi ñoo la gis daal en li ko waral mooy titre roi des arènes ba nga xam ne ni Balla yore woon na ko ñàkk ko 2014 tey mu nekkaat cim xelam ngir mu bëgg koo jël te rakk ja Ama Baldé war bëgg ko jël moom tamit ba tax na sax moom mu am sens tey di ko xëccoo jàkk nga xam ne moom moo di Modou Lo mel ni kon nag foofu lañ fay wax rek mooy ah làmb noonu la tëddee ñoom ñaar muy Ama ak Balla defe naa la leen boole dafa dépassé bëri kon defe naa ne Ama rakki Balla la Balla magi Ama la loola ñu ngi koy doxal ñu ñaan yàlla sàmmal leen seen diggante boobu kon defe naa nag ku ci nekk ci ñoom ñaar rek donte sport la ñuy def nekk ci milieu wu làmb waaye defe naa tey su Ama nekkee Balla tey ci la ma jàpp yaakaar naa ne yéene na Ama Baldé mu nekk roi des arènes defe naa loolu moom ñëpp teg nañ ci seen bët Ama itam yéene na Balla mu nekk roi des arènes kon defe naa ñoom ñaar ku ko ci nekk rek damay wax ne wax rek bi du génn gaal gi ah kër gum ci ñibbi rek day eh, maanaam day maanaam ni rek ci kër ka ca des la ne ndax diggante kër duubalees la ak kër ndem yàlla fa laay Baldé yàlla na ko yàlla yërëm kon defe naa fu ci bi dugg rek ci ñoom ñaar defe naa ne moom kenn parce que ku ko ciy xëccoo man leer na ma ne tey ama bal da koy jàppale si ko moom ak Modou Lo bal la itam su amee combat ama da koy jàppale kon defe naa ñaar ñooñ moom ku ci gagné titre ba rek ah dañ naan sa sens la ama nag moo ko war a xëccoo ji ndax moom moom boobu opportunité actuellement pour xëccoo ji ko xamuñu dina ko gagné wala du ko gagné nag su fekkee nag da moom bal da cay génne ndax xam naa ne moom bu keroogee dina ca génne xelam ba ba ko ama di ñàkk te bal bu ko ama gagné woon tey du ñaan mukk ama ñàkk ko déedéet day ñaan mu téye ko maanaam bu ko bu fekkente nag leneen dafa am parce que làmb lañ jëm ama ni mu mën a daane Modou Lo noonu la ko Modou Lo mën a daane bu fekkente ne nag ki nga xam ne moom moo di ama dafa ñàkk kombaam ah bu keroogee nag Balla itam ay chance am day ubbikuwaat ngir mu jot roi de arènes ba ndax su keroogee ko koy yor adversaire am lay doon muy ka nga xam ne nii moom moo di Modou Lo wala keneen ku ko mën di yor waaye bu ko Ama yoree daal wala la da dëgg yor ko wala guy gi yor ko moom defe naan bu keroogee xelu Balla da cay génn ak yeneen mbër yoo xam ne ca biir géejawaay waaw loolu nag mooy làmb ba tey bu nu continuer koo xam ne ni moom yoragul roi des arènes waaye bëgg na ko muy Gris Bordeaux moom nag yëglikaay bi daa ñëw ci moom ak ñetti yoon yi nga xam ne moom la war a mën a def pour maanaam am combat maanaam ah loolu nag maanaam li fi nekk mooy rek maye sens pour man wala mu xaar ba ñi taxaw seeni combat tas moo am ci adversaire ndax Gris Bordeaux bokk na ci mbëri ëpp adversaire ci làmb ji te defe naa itam moom du am problème adversaire pour man donte nag xëy na ndax li tax mooy amoon na combat ba pare mais yàlla indi ak ay ay ñàkk déggoo ba combat ba mujj yàqu waaye defe naa ne même bu bu bëriwul bu amul combat ci début comme ni ñu ko waxee début saison tamit man naam bu demee ba ci bu làmb ubbee bañ bëree ba carte gi leer ba yenn mbër yi daan ñenn ñi daanu su ko rogee itam dana am combat mais nag loolu mooy sport ah Gris Bordeaux ba tey bu faas waaw noonu comme ni ñu koy waxee ba tey bu ñu ñëwee ci li nga xam ne ni nag moom lañu def bëri ki démb CNC def ko muy wàññi licence yi mu mel ñi rafetlu nañ ko rawatina simple bi ñoom Doudou Faye ñoom Saliou Diouf ñoom Aline Gueye promoteur ñoom ñëpp rafet na ñoom Frasier waaye terewul ba tey ñu ngay laaj waaw ndax am na lu des Frasier jàpp na li des mooy 15 pour cent yi ñuy dagg mbër yi nañ ko wàññi def ko 5 pour cent moom loolu la gis waaw na loolu nañ ko def ka nga xam ne nii tamit moom moo di euh, ka nga xam ne moom moo di Aline géey bu Gaston production Aline Gueye bu nekk promoteur moom tamit la mu xam ne daal ne na arène nationale bi moom bëgg na tamit xëy na ñu laal la nga xam ne moo di prix ba effectivement loolu lépp ay waxtaan la rek te pour man suñu waxtaan rek lépp dina ne du jànjee ko moom mi jiite amateur yi moom vaar lay ay sites yoo xam ne day bëri coow jàppal bàyyil ay yoo xam ne ni mooy loolu ah bu dee mën na nekk nag waras na ko mën a uti bu dee lu mën a nekk la li mu doon nag des koy jiim indi vaar nga xam ne bu yenn litis yi amatee balaa ñu faa jógee ñu def arbitrage vidéo xool ko bu laajee ñu bëriwaat ñu bëriwaat ko bu fekkente ne dafa laaj ñu valider jël ba ñu valider ko ku nekk dem muy lu leer nañ lool su ma nee am defe naa dina gën te itam nag àddina comme day dox te vaar léegi dafa xew vaar yëmatul sax ci sport bi maar tey boo waxee say wax suba nga ne waxuma woon lii gaa yóbbu la vaar kon vaar moom yaakaar naa ne baax na loolu waaye nag xanaa xamu ne vaar sunu borom ko njëkkee waaw loolu la nit ñi dul xam vaar maanaam yàlla njëkk bañ koy wax di weddi moo tax looy wax na nga ko xool xoolaat ko boo juumee it neel damaa juum ndax te du maan jombul jaam yàgg maar li bon mooy nga dëkk ci di juum rek waaye tey nga nga wax li suba wax ja dañ wala nga weddi ko loolu mën na nekk waaye ca kaw nga assumé ko bu keroog nañ la ko pardonné ndax sëñ Cheikh Mbacke dégg naa daan na wax ne man wax mu nekk yàllaa ko man waaye man Cheikh Mbacke lu ma wax nar naa ko kon lu ñu wax rek yàlla nañ ko nar loolu moo ci am solo ba tey bu ñu continuer ak làmb ji 251 jours yoo xam ne nii moom lay jóge door koo jox ay jawriñam ñu jëfee ko kon defe naa moom fi mu nekk nii ah a xam li ñu koy xamal daal président en tant que suñu président de la ah, noonu lañ koy waxee yàgg maar loolu mooy li nga xam ne daal kon tey gaa yow la déglu gaa yi daal na mën nañ bëri bëgg nañoo gis mbër yi waaj tous mbapat yi jalaañoo ñoom euh, nu mu tuddati mbayang lu mu way ah ñoom day faatu aadama jëli xale ya tëg ñoom Maodo Faye ak ñoom euh, ka nga xam ne mooy xale ba ngom ah, ñoom ñëpp waaw loolu gars yi dañ ko nam fi mu nekk nii bu baax a baax waa gaam yi nag moom daa mel ni jamono yooyu moom loolu ci mën a dégg ñoom ñu ngay def ca placé daal chaque dimanche ñu ngay bëri ñoom moom daa mel ni ñoom ñu nga ca ñoom waaye loo ci mën a dégg daal réew mi moom nam nañ làmb euh, record ñëw na ci tamit lu tax mbir yi ñu accéléré ko gaawal affaire yi boo xoolee gars entre le 5 novembre bi ñu fi nekkee le 18 novembre décision yi commencé waaj am mel ni kon am na loo xam ne moom bu amee rek la Youssou wayoon moo fi ne rek ah Abou Ndour maanaam gàddu leer jublu ci leen fi ñoom du ñu ay wàcc bees mbir yi ci mbir yi làmb lañ ma sane muy président ak ña mu kon defe naa moo tax affaire yi warul yéex bu ñu la joxee ndombo tànk ci benn mbir nga war ko doxal jërul nekk fa di lem-lemal boo ñëwee jàngatal situation ba commencé nag doxal parce que yow mi ñu dénk ñëwuñu farale fee dénk la liñ lay dénk am na loo ci xam am na loo ci war a mën def am na ay méthodes yoo ci xam yooyu defe naa ne lu war a mën a nekk la dëgg gi war a am ci diggante affaire arbitre tamit yëglikaay bi ba ñëw na ci moom recours dëgg gi nag mooy man moom la ma ca xam daal moom laay wax di ko waxaat rek nañ leen bàyyi dindi sanction yi ñu ñëwaat arbitré la ca des ñu war ko waxtaane ak ñoom ñu waxtaane ko ak ñoom lañ ca jàpp ñu mënees koo def ñu def ko lañ ca mënta def tamit ñu aj ko continuer waxtaan parce que pour man réeroo amul ñàkk a waxtaan rek mooy faral di am waaw loolu mooy li nga xam ne ni moom ba tey ci record la ba tey record ñëw na tamit moo sunu lam sax ku ci ne ñëw nga ci ci diggante Yékini ak ña nga xam ne ñoom ñooy yëngutu ci wàllum lutte simple ba ca Mbour ñoom nag daal daa mel ni tabug Yékini la ñu bëgg ñoom ñoom daal fi mu nekk moom loolu la laaj ah mu mel ni kon nag loolu est dina mën a tee nekk ndax bi kon defe naa man pour man euh, euh, falug Yékini yaakaaru mu man a teene kon li am solo daal mooy nit ki nag am nga droit ne lii moom a gën a lee yaa ngi dégg waaye daf ci am loo xam ne pour man doon na gën a baax balaa ñuy fal bureau bi comme yow ci mbir yi nga bokk nga gën réclamer ko wax ne kat ñun waa lit simple bi dëkk fii wala ñun waa lit simple bi nekk fii lit simple bu dee am na kuñ koy dénk nañ ko dénk yàgg maar wala asan bu ko defee ñu teel a xam ne yow mi waxoon nga ndax sama maam doon na wax xamoon naa ko mais magum waxoon naa ko laay doon te loolu mooy ëpp solo mais fi mu nekk nii pour man moom béy wéy na mbuus ndax màng dénk nañ ko affaire yi ki nii nag dama jàpp ne ku autorité voix autoritaire la ci làmb parce que li tax mooy gàddu na dara pour réew mi défendre ko fu ne toog fi ay at kenn daanu ko maanaam sigil làmb def lu ne ci làmb xëy kere Fatou production di tëggaat làmb kon defe naa kooku tey ndomba tànk bu ñu ko jox ci làmb rek pour man mérito na ko te am naa yaakaar dana ko war a mën a doxal waaye nag dafa fekk ne comme ki doon dénkaane moom manga la tànn ah ñu ñaanal manga mu réussir rek parce que moom lañ tànn manga itam ku ne xam na ne euh, roi des arènes ci moom la doore yaa ngi dégg muy koo xam ne tey kenn dootu ko présenté ci làmb ndax lu ci bare bare def na ko ci bàyyi bëri nekk promoteur ñëw di tey les anciens gloires di leen assister ci lu bare bëri ñun am na ci yoo xam ne fekk nañ ko am nañ ceeg moom ci ay reportage kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne mérito nga jiite leg simple bi waaye faw kenn ko ci mën a jiite kon ku ko ci jiite rek nañ ko ñaanal mu mu réussir mission rek parce que bu yoon jeexul waaxu si lu jeex yiki nee ngi fi maa ngaa ngi fi te maa nga du di jiite déedéet parce que lu ci mën a nekk rek ëllëg da nga fiy jógee sa morom ñëw mais pour man daal nañ rafetal lépp rek parce que waa lit simple waa làmb sax laay wax en général ak frappe ak ñëpp ñu war a bokk bokk bàyyi kuñ ci jox poste la nga dem yaa ngi dégg balaa ñoo fal nag ku ne am nga droit li nga bëgg ndax gisoon nañ physio technique mu taxoon dafa bëgg a jiite làmb loolu mooy yoon ka nga xam ne mooy Keba Kanté def na ko ñoom ñëpp ku ci ne réclamé woon nga ne nañ ma jox ma jiite mën naa ko doxal et puis nit noonu ngay doxee pour man loolu mooy yoon mais terewul faluñu leen mais nag terewul ah wax nañ ñoom la ñu bëgg wax leen ci ñoom ba tey Leewtoo point net bu ñu fa demee fekk nañ fa Abdou Fall tamit ci wàññum licence yi jàpp na ne loolu warul tax itam ñu bàyyi affaire bi mu mel ni daal sabar gu tas fu neex waaye tëbb rek dugg dana eh, lépp nañ ko teg ci aw yoon parce que day bañ xëy na sabotage wax na dëgg mbir moom bu tegul ci yoon rek day nekk anarchie boo amee du jural njariñ ña koy seq kon loolu moo fi ñëwoon tey di ñaanal ñëpp jàmm di ballu ñëpp ak encore une ajuma ji di wax nekk Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñoom Abdoulaye Mbaye maa leen di béggee Mamadou Kaolack Diallo ñoom Cissé Ngari Brésil fans club Babacar ma leen fàtte ah 100 pour bi ñoom Grand ah, xam nga fan si club Leewtoo ak Babacar tamit du ma leen fàtte ñoom Awa Diop ah ñoom Cissé aw Fat Dia rakku bombar ñoom ñëpp maa leen di bëgg ñoom Arona Camara Adama Ndiaye ñoom ñëpp maa leen di ziar di leen ñaanal jàmm waaw di nuyu tamit sama ay mbokku reporter yi nga xam ne ñu ngi ci benn association Bour Gueweul di suñu président ñoom ñëpp maa leen di nuyu le président Bour le secrétaire général Pape Maguette Ba ñoom Lamine Seck ah sama rakk sama xarit pël bu rafet Fatma Diop ñoom ñëpp Fadel ah ñoom gaa yëpp daal maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm bàyyi bàllam buub du ma fàtte kenn yat ma ñoom tout le monde maa leen di bëggee di wax ko ni daal yàlla na yàlla defal ñu jàmm may ñu xéewal muccal ñu wéral ñu yéen ñëpp jàmm di nuyu képp ku ñu suivre rawatina nag sama mbokk bool bool yi maa leen di bëgg di sama soxna bu baax a baax di nuyu sama maire commune maître Pape di ko wax mention spéciale yàlla na sa jàmm yàgg di ko ñaanal képp ku dëkk tamit ci commune ba la dëkk ñu gis ko mu yëngatu ci mbirum politique def fa bu am solo muy Edouard ñu ngi rafet loolu nga def gis nañ nga jël ay kaye ak ay yooyu jox xele fi loolu am na solo dama naan nañ bokk ñu pousser la pour que commune bi nga mu mën a jëm ca kanam ka fa yàlla teg donte ku bokk la moom xalaat tamit la muy def ci lu rafet nga saluer ko la nga gis ne ni normalul nga denee sa ko ci lu objectif nga xam ne njariñ lay doon mais ñu bañ a daal di euh, di di di critiquente ci loo xam ne doom am objectif loolu rek mooy yàqu-yàqu bi mais defe naa tey commune Ndondol ñun ñëpp ku ci ne fa nga war a taxawee ci fa nga ne mooy fexe mu avancer jëm ca kanam kon la maire encore une fois rek maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax parce tamit bëri loo xam ne ni tey ca commune ba yàgg maar ah du ma ne kenn yàlla nga nuyu te gisuma ko waaye def na ko fa ci loo xam ne man xam naa ko waa commune Ndondol xam nañ ko kon yàlla na jàmm yàgg maar